Josette Kali. Vous écoutez la 98.9.5 Sud FM Sen Radio, il est 0 heure, l'heure du bulletin d'information. Solifatia sur la partie technique. Le mouvement Diwan Bamba fait peu craindre des lendemains sombres au sein du pays face à l'appel à la violence de l'opposition et au recrutement de nervis par le pouvoir, un mouvement qui exhorte l'opposition et la, et la société civile de sursoir à la marche prévue ce 23 juin. Euh, 2021 afin d'éviter des événements similaires à ceux du mois de mars dernier. Il invite également le gouvernement à prendre ses responsabilités pour la stabilité du pays. Nous écoutons le compte-rendu de Aïssatou Guèyeba. des appels à riposter. bu <coughs> ñu gisee fan yi ñu génn ñi nekk ci opposition bi recrutement de nervis. La presse nous a informé que lors euh, de la tournée économique du chef de l'État, des nervis ont été recrutés par des partisans du chef de l'État et ont attaqué des individus. Des événements qui risquent de soulever une nouvelle crise à l'image des événements de mars dernier, avertit le mouvement Diwaanu Bamba créé par Cheikh Ahmadou Karam Pour éviter d'éventuelles échauffourées, il demande à l'opposition et à la société

D'ailleurs, le chef de l'État devrait également prendre ses responsabilités, euh, soit euh, d'arrêter ses tournées économiques pour le bien de tous ou revoir la formule de sa tournée économique euh, à l'origine de fortes mobilisations qui créent souvent des incidents déplorables. Le mouvement Diwano Bamba Fep exhorte les autorités à respecter les dernières recommandations du Khalif général des Mourides afin d'éviter le scénario du mois de mars dernier. La coordonnatrice du mouvement Fouta Tampi est très remontée contre les nervis qui l'ont passé à tabac lors de la tournée économique du chef de l'État au Nord. Elle dénonce le mutisme des autorités des organismes de défense des droits humains et lance un appel aux chefs religieux et autres forces vives des dérives sur les dérives des nervis. Le mouvement Fouta Tampi a fait face à la presse au quartier général de Yanamar. Écoutons Alioune Sané du mouvement Moustapha Mandiaye. Que d'autres voix puissent sonner à Fouta. Au-delà des souteneurs du président Macky mais que le peuple Fouta, la majorité populaire de Fouta puisse s'exprimer pour crier son désarroi, pour que le président puisse entendre leurs cris de cœur et leurs cris qui symbolisent un ras-le-bol. Et vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Ils étaient là pacifiquement avec leur t-shirt rouge pour dire Fouta Tampi. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu à côté des forces de sécurité publiques essayant de gérer la sécurité, il y a eu une centaine de nervis qui sont arrivés s'attaquer à eux. Et Fatoumata vient de nous dire que des nervis qui ne sont ni policiers, ni gendarmes, encore moins corps d'élite de l'État, prendre des grenades lacrymogènes qu'ils ont pris je ne sais où pour les jeter à des citoyens qui n'avaient que leur t-shirt et leur cri pour dire Fouta Tampi. Au-delà de ces grenades lacrymogènes, Fatoumata vient de nous dire qu'elle a été bastonnée, que d'autres femmes ont été bastonnées, que des jeunes ont été bastonnés jusqu'au sang. Ils ont été obligés de fuir et d'aller dans la brousse pour pouvoir rallier Dakar. Et ceci est un précédent dangereux. Ça fait maintenant un bon bout de temps, depuis des mois, que les Sénégalais s'inquiètent de ce phénomène des nervis qui est en train de prendre des proportions inquiétantes dans ce pays. Et on a vu qu'à chaque fois en Afrique ou ailleurs que des choses comme ça ont commencé, ça a fait le lit d'une guerre civile. Et on ne veut pas de cette guerre civile au Sénégal. mais à l'impossible nul ne sera tenu. Mmh. Parce qu'aucun Sénégalais ne restera comme ça à regarder d'autres Sénégalais qui sont eux-mêmes victimes du système, victimes de l'échec des politiques publiques en matière d'emploi des jeunes, en matière d'éducation et d'insertion, être utilisés par le pouvoir pour des sommes dérisoires à s'attaquer à d'autres citoyens et rester comme ça à leur tendre une autre joue. On ne leur tendrera pas une autre joue. Disons aussi que à l'issue des discussions, il a été retenu avec nos frères et nos sœurs de Fouta Tampi, que ceci ne pourrait pas rester impuni. On a vu durant les événements de mars dernier que des Sénégalais ont perdu la vie parce qu'ils ont été tués. Et jusque-là, malgré les exigences du peuple sénégalais en matière de lumière sur tout ça et responsabilité et sanctions, rien n'est fait jusque-là. Et aujourd'hui, à tout cela vient s'ajouter ces actes criminels qui ont été commis, dont sont victimes nos frères et nos sœurs de Fouta Tampi. Et donc, une plainte, des plaintes seront déposées ici au niveau national et au niveau international. Débrayage ce mardi à 9h, grève totale mercredi à l'appel du G7 pour dire stop aux violences faites aux enseignants dans le milieu scolaire. Abdou Fati, secrétaire général du CELS authentique, demande aux, ense aux enseignants d'observer le mot d'ordre. Il invite les parents d'élèves à jouer leur partition et que l'autorité exhibe surtout des commissions de discipline dans les écoles pour que ces gestes ne puissent prospérer. Il attire également mettant l'attention du ministère de l'Éducation nationale sur les dysfonctionnements notés dans le recrutement des 5000 agents qui doivent faire la formation. Abdou Fati, secrétaire général du CELS Authentique, membre du G7, au micro de Denisia Sambou. effectivement, le G7 appelle tous les enseignants, enseignants du Sénégal à observer pour demain, mardi un débrayage à partir de 9 et grève totale le micro de pour protester vigoureusement contre les violences constatées dans l'espace scolaire. Depuis quelques années, les enseignants sont victimes d'agressions et récemment, nous avons tous constaté le cas de Tcharoy, le cas de Lambaye, le cas de Kebemer, le cas de Gandiaï. C'est inadmissible, trop c'est trop. C'est pourquoi les enseignants du Sénégal, debout comme seul, seul homme, attirent l'attention de l'opinion, des parents d'élèves, sur effectivement ce qui guette l'école sénégalaise. Nous ne voudrions pas vraiment être confrontés à l'imparable. C'est pourquoi c'est un moment pour nous de communier avec la communauté, que les parents d'élèves fassent le travail et que l'autorité également exhibe surtout les commissions de discipline dans les écoles pour que effectivement ces gestes-là ne puissent pas prospérer parce que le monde s'est globalisé et on a constaté ailleurs que les Nous profiterons également de cette journée pour attirer l'attention euh, de l'éducation nationale sur le recrutement des 5000 euh, agents qui doivent effectivement faire la formation euh, des instituteurs. Il y a beaucoup de dysfonctionnements et c'est le moment de faire une pause et de régler ces dysfonctionnements-là. Donc l'autorité est alertée, l'opinion est alertée sur les agressions et également sur l'impérieuse nécessité de relancer le monitoring. Josette kali jaajëfal naa leen ci déglu bi talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2021 lii di yemamaay ci xibaar yi nag dañ koy dooree ak mouvement diwaan bamb fépp mi nga xamante ni mooy ragal nag dëkk bi daanuwaat ci beneen goutte ginnaaw nag bu opposition bi di woote euh, ci fippu nag euh, gouvernement bi moom di recruter ay nervi mouvement bi sax di sàkku ci kuje gi noone ak société civile euh, ñu dakkal dox bi ñu fas yéene amal ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bi ngir nag ñu bañ a am ay jàmmaarloo yoo nga xamante ni moom lañu amoon ci weeru mars bi ñu génn noone sax ñuy sàkku ci gouvernement bi mu jël ay responsabilité ma ngir tekk ak tey mën a am ci biir réew mi Aïssatou Gueye Ba ay woote ngir bañ bu ñu gisee fan yi ñu génn ñu nekk ci opposition wax ji ñuy wax mu mel ni wax ji dafa laal fitna mu mel ni wax ji day préparer nit ñi pour ñu xeex ak nervi yi. lii nga xamante ne dañoo ànd ak njiitu réew mi ku ne gis na fan yi tournée bi am euh, ñu gis si ñu ñuy tuddee nit xam ñun du ñu wax nag wax buy affirmatif mais ni kuy accuser kenn waaye loolu moo am ci presse bi. wane nañ ay nit yu am kàttan mais dañoo ànd ak kuréel gi nga xamante ne mooy kuréel gi ànd ci. tournée économique mbir yoo xamante ne nag bu moyul dana andiwaat li fi amoon ci weeru mars bi ñu génn janone le mouvement diwaanu Bamba fépp nga xamante ne kii di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké moo ko daal di sabab avertir autorité yi Mounirou Sarr mooy secretaire général mouvement boobee. xamal mu ngir moytu li ni mel nag mu daal di laaj sax kii di opposition ak société civile mu daal di teg ci suuf doxu ñaxtu bu muy waajal. 23 juin bi moom la diwaanu sulkul jawaahin kambaari sarail di ñaan ñi nekk ci kujje politique bi yëpp di opposition bi di société civile bi ñu sursoir ko ñu teg ko ci suuf ay guide religieux yiy woote ci dal ca itam lañ daal di woowee kii di gouvernement bu Sénégal mu daal di jël ay responsabilités ci mbir moomee laata muy gën a doy waar ko ñaan moom mi njiitu réew mu teg tourné ci suuf bu ko mënut a teg ci suuf it format bi mu koy defee ndax moom waaye format bi ñu koy defee maanaam muy am ba ngoon ñëpp di jug ba fitna di ci am dañ koy ñaan mu teg ko ci suuf. mouvement diwaanu Bamba fépp di woo nag ñii di autorité yi ngir ñu daal di bàyyi xel ak respecté digle ñi nga xamante ne nag kii di xalif général des Mourides defoon na ko bu ñu bañee li nga xamante ne amoon na fa ci weeru mars amaat fii ci réewu senegal ay Aïssatou Gueye Ba coordonnatrice bu mouvement Fouta Tampi moom maire ba Fouta la def ginnaaw doxalin bi nervi yi am jëmle ci moom maanaam door yiñ ko def nag ci tournée économique bi nga xamante ni président de la république mu ngi ko doon am le eh, ci bët ci bët gànnaaru réew mi noone muy ñaaw lu pat pataaralu yenn ci ay organisme yuy xeex wàllum ak ak yelleefu doomu aadama eh, muy sàkkuwaale sax ci ñi nga xamante ni ñoo di kilifa diine yi ak képp ni nit koo xamante ni am nga baat ci réew mi nga àddu nag ci doxalinu nervi yi mouvement Fouta Tampi tey dañu doon janoo ak taskatu xibaar yi démb nag ci altine gi ci makaanu Yanamar ñu teewlu ki nga xamante ni moo di Fatoumata Ndiaye di euh, présidente bu boobee mouvement bu Fouta Tampi di coordonnatrice bu Fouta Tampi euh, ci micro Birama Ndiaye. du ñu ay Ivoirien du ay Malien nationalité sénégalaise lañu yor juddoo fi yaroo fi màggee di fay impôt di dagg taxe kon dama foog ne tey suñu institution may nañu ku sañ a taxaw ne bravo kontaan nañ ñun bu ñu kontaan nañ amuñ sañ-sañu taxaw ni ñun kontaan nañu waaye dañoo gis ne ne suñu àq ak suñu yelef yëpp dañ koy bafoué a chaque fois boo xamante ne rek ñun gis nañ lu anormalul ñu génn wax rek nguur gi dañuy xoqatal nguur gi day bëgg damm suñuy tànk nguur gi dañuy jël ba bëgguñoo génnee réew mi nguur gi day dem bay jël ay nit ku utiliser pour ñu ñëw ci ñun di kaw à l'espace de 15 jours matul un mois naa ci ñetti kër moo mujjee toxu bi moo def ñetteel dafa seenituma toxu nag dinaa toog jàmbaarloo nguur gi réseau gi nag ak sunu manière génn nañ président war a dem tegi pose première pierre hôpital bi ñu sol suñuy t-shirt yu xonq taxaw naan fuuta tampi fuuta maay waaye nag man duma sunu force de l'ordre yi laa njëkk a ŋàññ ñun si ñun ñun ñoo leen di fay ñun ñoo yëkk suñu xaalis suñu xaalis dañ leen di fay suñu kaaraange seen loxo la ne waaye bu ay nervi ñëwee suñuy force de l'ordre taxaw ay nervi ñëw dal suñu kaw di ñu dóor man mi di jigéen ñu dóor ma ba daane ma si suuf ñu jël beneen xale jigéen yaa dafa def sutura dafa jiitaloon beneen yére ñu sumi ay tisetam sàcc suñuy portable jël suñuy banderole jël suñuy pancarte dóor ñu ba ñuy bëgg a di dóor bu nekkoon benn yoon sax mu tañ waaye ñaari yoon la ñu dóor yaram yëpp di waaye ba tey dinañ ko gérer noonu gendarme yi daal day ñëw ma ne ko amoon dara looy wax moom commandant ma ne ko yéen ñu njëkk a dóor parce que yéen a jàkkaaroog ay néew ma wax néew sax ay bande recruté wax ñu jàkkaaroog yéen en tant que force de l'ordre ñu ñuy dóor deful leen dara jàkk waxu leen dara ñun xanaa ñun duñu ay sénégalais te sénégalais yi yëpp laa jël en témoin gis nga problème mu nervi bii buñ ci teelu la jóg fere ne ko fi mu jëm du baax ba jamonoy baax force de l'ordre moo waroon taxaw sécuriser ñëpp waaye ay bande recruté ñuy jàpp ay doomu aadama di leen dool ci kanamu fos de l'ordre du ñu wax dara du ñu wax lenn jot na nag ñu reñ ko man nag Fane Ndiaye damay wax man dama part personnel te lu ma ci góobee gar ko dinaa ut sama arme dina ut sama permis si jigéen laa ku ma attaqué ti danaa dal sa kaw lu ma yoon may ma jël oh. parce que nag du ma nangu tamit man ñu may rey oh. balaa ñu maa rey fagaroo gën faj damaa yor njaboot te sama yaay dama dama yónni yàkkamti beneen bi mooy mooy le le droit de l'homme xaw ma ñoom amnistie ak ñoom ñëpp ñu ngi gis ne yi ni ñuy lëmbaajee kenn nanguwu cee wax dañ cee war a wax kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñoom ñi nga xam ne problème bu am dañuy génn wax ci nañ ñoo wax ci problème bu nervi yi sinon guerre civile dina am Sénégal te bu ñu moytuwul ci lañ jëm ci wàllum njàng mi nag ci talaata gi dinañu banque seeni yoxo nag bu juróom-ñeenti waxtu jotee àllarba gi ñu amal grève totale ñi ko nar a def nag moo di waa g ngir nag ñu dàkkal ñaawteef yi nga xamante ni moom la ñuy teg ci jàngalekat yi ci milieu scolaire bi Abdou Fati nag di secretaire général bu SELS authentique moom muy sàkku ci enseignant yi nga xamante ni ñëpp ñoo bootu ci boobee kuréel ñu observé bile mot d'ordre de grève noonee muy sàkku it ci waajuru ndongo yi ñu wàccu woo ak lépp li ñu war a def ngir lii mu mën a dakk noonee gouvernement bi mu samp ay commission de discipline ci bépp ecole bu ko defee nag lii nga xamante ni moo di ay agression ñu koy amal di jëmale si jàngalekat yi mu mën a dakk noonee it attiré na attention wu ministre bi ñu dénk wàllum njàng mi ngir mu xool nag lépp loo xamante ni ay dysfonctionnement la nemmeeku ko ci recrutement wu 5000 agents yi ñeel formation bi ci wàllum njàng mi ak njàngale mi Abdou Fati moo di secretaire général bu CELS authentique bokk it ci G7 ñu teewlu ko ci micro Denis Ya Sambou di wax rek ñun waa g nga xam ni ñooy syndicat yu gën yi ñu ngi woo jàngalekatu Sénégal yépp que ëllëg mardi à ñu banque seeni loxo mercredi moom bu kenn dem l'école li ko waral rek mooy li ñu constaté mooy jàngalekat yi ñu leen di xoxatal di leen dóor di leen gaañ yéen ñëpp depuis daaw mu ngi am mais ren moom yëf yi dafa gënawul a ñaay li fi xew fan yëpp dégg ngeen ko muy Kébémer di Caaroy di fan yëpp làmbaay suñuy ay jàngalekat yu jigéen ñu leen di xot di leen sànni ay xeer loolu duñ ko nangu balaa nag ñuy yegg ci musiba ñu ne nag nañu toog ñun jàngalekat yi manque suñu loxo pour que parents d'élèves bi communauté bi ñëpp xam ni ah monsieur de kenn du ko dóor soo ko accompagné wul kenn du ko dóor te loolu tamit ñu buñ ko nangu li am si yeneen dëkk yi la ñuy bañ mu am fi léegi li ñuy wax rek mooy ah, njaboot gi waxtaan ak seen i doom Euh, euh, autorité bi également conseil de discipline yi fi am mu ressuscité ko élèves yëpp xam ku fi def loo warul def lii mooy dar sa kaw dañ siy profitoale également pour wax gouvernement bi ni euh, recruter ay jàngalekat baax na wante nañ ko def nag ni mu gën a sellee ni mu gën a leeree am na jàngalekat yu bari ak ñu bari ñu déposé seen dossier am problème nañ ko rectifier comme actuellement ni ñu koy rectifier nii di wax ni également ñaari fanu grève yi mooy dañuy dànxaafu nguur gi ñun de kenn dégguñu at yi yëpp wante nag trop c'est trop monitoring bi tamit wax dëgg yàlla jot Kali. fi la ñuy ndar képpe yi la xibaar ci yëmmamaay woy leen di safoo programme Sud FM seen rajo léegi léegi mën ngeen déglu rediffusion seen émission Kaarange yoon ak Mamadou congaan